damay xaar ba ni ñi gën a bari rek léegi laa set up dis xama petition la tudd xama xayam pour ñu sign ko sotmit ko pour pandri radio bi close down online news agent bi tamit close down bii nag mooy time pour ñu xam yéen gambien yi ndax dëgg-dëgg buggu ngeen Gambia or man nag bu leen gis mu bëri wax gi nii de du ma ko dee def si ngelaw fu ma ko def fu ne rek xamal ne xam naa lu tax ma di ko fa def pandri ñun suñ continuer di wax si mbiram fa ñuy wax ba dee ni muy def gambien yi du baay parce que xaalis la siy jële loolu lay def pour lu mun a lekk pandri jàngal na suñ gambien community bi yëpp bon soxot xaste di ko xooxee am telling the truth te ku ne xam na ne is not am telling the truth is xaste bon xañaan soxot just because defagut la ko just because mu ngi koy def ñu nga bañ just because mu ngi koy def ñeneen ñi te yow nga nekk somebody koo xam ne ñeneen ñi lu leen mënti dal as long as dalul la rek yoon néew si warut a tax ne waroo koo kondem parce que soo ko kondemut ñim ko jàngal ñu ndaw ñim koy jàngal te muy teñ génn already Facebook di def seen li liñ jàngee si moom already dalee ko si man danañ continuer di gën a get worse te su boobaa sa doom du si mucc sa doomi doom du si mucc moo tax ñu wara a close pandri liggéey bu ban bu muy def si Gambia xat yi yépp pandri ay nit dee ngir moom pandri ay nit dof nañ ngir moom pandri li muy def du journaliste du ndof kenn xamul nu tudd man nag duma si nekk di ko condemn xat bu ne may wax muy gën a get worse xat bu ne mu di ñu gën a jàngal sañ mbon soxot xaste di ko xooxee am telin de turut su ngeen buggee ñun ñëpp ñu jóg ànd si ñu sign petition bi ma bu ma bu ma seeyee suma vidéo suma YouTube channel bi ak suma Facebook bi seeyee naa ko léegi nii léegi nii laa dem online set up petition bi it's actually very easy pour nga seti ko up. sign leen def naa fa 99 but dafa war a nekk as much as I we suñ xamee thousand people or more than thousand sax it's good siyareen ngeen wax seen xarit yi ak seen mbokk yëpp ñu siya te ñu login si website bi ñu it's very easy da nga def sa email adresse rek xaw ma ndax soo demee dinañ la laajte nga def comment lu tax nga bëgg close man laajte nañ ma lu tax ma bugumu mu close def naa fa suma own comment xëj na yéen tamit su ngeen demee su ngeen defee seen email adresse dinañ leen laajte tamit lu tax ngeen bëgg mu close ngeen lu tax ngeen bëgg mu hate speech yum dee def tribalist yum dee indi si Gambia loolu rek is the number one reason lu tax mu wara a close pandari waxam yi moo gën a tax Gambia léegi soose yi mënatuñoo xam ak nit ñi jàmm das da réalité ta su continuer dafay gën a was te nit ñi xamuñ joti hate bii nii Gambia ku fa nekku di si ak soose sa mbokk nekkul di si ak soose it xamal ne inda the future sa mbokk dina si ak soose wala di nga xam something to do with wala yow sa bopp soo seetee sa bopp xam nga something to do with soose amuñ joti xaajala sooseek xolof number one reason lu tax ñu war koo kuloo rek mooy xiitam bi si soosee and number two bulli yu muy bulli nit ñi di leen ñaawal di leen xas dib xas di ko xooxee telin the truth only because mu ngi koy def si xolof tubaab yi dégguñ lu muy wax ñun ñi xolof yi mun nañ ko report wax tubaab yi lu muy wax wax jox tubaab yi audio bi gars yi interprète ko gars yi ut interprète man xamoon man liggéeyoon naa asa interprète fii ma fi ñëwee xees interprète la ñuy ut mu wax leen lu pandri dee wax si rajoom bi audio yëpp nit ñaan ngi ko xamee gars yi close rajoom bi tout second la ñuy close rajoom bi close close freedom newspaper bi yëpp la ñuy close su ngeen ko saynut nag gars yi duñ ko mën a close man kenn mënuma ko sayn yëpp man bu ma mun a sign rek mooy set up set suma force one signature bi mooy set up petition bi yéen yéen a ko war a sign jigéeni américaine ba fi gambeen yi jógaloon bu yàggut naan fañ koy signal petition xaw ma jaale paa lu def si community bi moo raw jigéen boobu téeméeri junni yoon paa mbañeel bu mu jëmbat suñ community bi xasante bu mu jëmbat suñ community bi jàngat na ñun ñëpp xaw to xas dalee ko si man lay ka seet it's embarrassing to confess but this is the truth this is people don't have time to fake stuff pa nit ñum jàngal xaste and di ko xooyee am telling the truth moo tax suñ community bi yàqu ku click Facebook live tañ ci nit wax ko juróom-ñaari historim yokk si sax lu neex ngir noon lay de ba pare di ko wooye am telling the truth te xam ne jaaduwut xam ngeen ne is not the truth is ak bon ak xamadi ak sañ ak ndof yi na ko tey waaye soo gisee ngeen bàyyi ko xat yi waxu leen si dara laalut leen mbala ñi muy laal ngeen di xaqataay moo leen neex ndax ñun fañ miin di gis nit muy muy dund soxot ñuy ree ci suñ deret ji la ne waaye lii is beyond ndax pas suñ gune yi comme ma ko waxee si vidéo xolof bi démb rek suñ gune yi muy jàngal mbon gi gune yi continuer di ko def suñ doom yi suñ doom yi neen di ko continuer di ko defante comme num ñu ko jàngalee ñun looloo tax ñu war kon dem pas su buggee def radio dafay def radio nit fekk mu ngi def radio moom nga beneen plateform bu fi xam radio di jëm di di wax def hate speech xamal ne paa mooy ndeyam te paa moo ko jàngal ndax rajoom yi si rajo yi njëkk a yàgg la bokk te rajoom yi naka jekk daf dee def hate speech towards soose nañ waxante dëgg hate speech towards towards anybody moo tax mu wut tur boobu noonu kooba di làqu si gannaaw tur boobu du làqu si gannaaw tur boobu Freedom Radio du wut Freedom Radio Freedom ak mbon ak soxot ak xamadi ak xañaan dafa xuute man de xolof laa boot ay condemn lu paa di def ndi xam naa lu muy def mu ngi may xaam man te mu ngi xam te dana xam suma doom yi ak suma doom yi rakk yeeg suma doom yi mag yëpp lu muy def dana leen xam suñ si jógut ñun ñu jóg Facebook di xasante yëpp fa paa ñu jàngal xasante meeg sañ mbon mi man nag dafa am ku may léttu suun ma dem xaaral ma gaa wax si um, soose mbaa di mandin ko nga ñim petition whatever the name is set is on my facebook here ala shia I'll, it's very easy you just log in there you put your email your address and you put they might ask you question why you want this freedom radio close explain why you want freedom radio close if you cannot write English properly, your English is not good. Just say hate, hate, hate platform, speak, always speaking hate or hateful, harmful platform to our community. Hateful platform, tribalist platform, bringing tribalist and hate for our community. Just as little as you can, just, but if you can write English, take your time, five minutes write very good grammar, explain properly why we have to condemn this platform because the fact that this platform is bringing tribalists in the country because of their hate for Mandinkas. Also, this platform is bringing uh, uh, people to, to learn how to insult each other, you know, and call it I'm telling the truth because that's what this platform is doing. Insulting people and allowing people to call, to insult people in his platform and call it telling the truth. Explain. You might even, your English might even be better than what I did there. Explain. They just want to hear why, you know, they have to close it. If they have the same information from different people, they will close it. We're going to submit it to the government in the US. They will close it. This is Tubabudu. There's law. Aligning petition SIA, aliya uh, sign, aliya SIA, aliya for Allah terimal, ning follow us ning friends all, be condemn. Ni wanting I'm not going to say nothing about pandering. Nalman Yin sign, this is the last time I'll nothing, say if he uh, uh, uh me, I don't care. But if he attack somebody I will never nothing. Because I'm tired all these years coming whenever Pandri attack people and I feel bad. I don't do it all the time because then I always talking about him. But I did couple of video telling him to stop attacking people in Gambia personally and call it, I'm telling making so for them for their enemies to come and call and insult all day and call this is the only place because it's Freedom Radio of course it's the only place because place is nyamato wicked idiotic disrespectful hate tribalist place wala yatinda is the only place but why are we allowing that in our society why ado ñi ñi job haberi uh, black American woman kabene anata in Gambia abe Gambia no dia mundela anyhow mol wulit a kapatri Pandiri Kaminke is worse than what black American Kaminke. 100 million times worse. Muniati na Almanya sign no. Yarafang is very easy for Kanyin sign for somebody. Alma sign all these years for anybody. Less than. If we can look at people like Pandiri Adumang Fen sign for Ayeboje, why we trying to sign for any person that come into our country to talk to us anyhow. We are you, don't respect us and signing stuff for them. Pandiri Akaminke, he's, he, teaching us to hate each other. Mandinkas to hate us and we hate Mandinkas. That's worse than any black American talking about our culture. You don't think so? Pandiri Kanyiminke. Huh? wuliyati nan tol ñongol be you the god kana facebook ka video ke kamol nenk o kamol kajabe anyhow o ka go atele nyin karandin tol bela because atebe sirinje over year old man kan yinke adun atol ka lamoy atol ka like atol ka jele ka ka, ka fo you know pandri kai pandri kai amankati it's not just pandri kai amankati de after you know amankati ye wuli ye something care about it ni wonten ate aka kodo soto from nyin lack of kati nyin kati baliya aka kodo dilala so ata bulala look I'm tired because I, I started working out again you know and I'm not well and then I have work to do even soon at 12 o'clock ñun tubaab musoo ñanta dingoo naate la debe but nga saay saay na video ke in in English in my YouTube channel I explained there al ñanta ñim petition thing sign na pour pas but I just end up looking how to sign one and I found out it's actually very easy to sign one they don't even need your details much your email address and to explain why you have to sign it and to tell them the person that you're going to be campaigning against. That's all. It's easy. And to put a picture. Anybody can do it. So, Allah sign, Allah share. I need many people. That's just the target I have there, but I need more than that. Nalma sign Aliyah condemn. Not just Pa is not good what he's doing. No, that's not why we are, we're it. No. It's because ntol la di ningol adon tol fango ka karanko is okay pul ye na mo neng ye ta deep personal ya neng because of politique warante because of amari barketale katambi itela warante because amari man warante because of you don't like amari wole ya tinan tol nyanta konden la adon tol yalo ne nying is in us pale ya sabatin din tol ya ka bring pa commencer kala nying hate speech ka diamu fo kodo man sakundale mo anybody ne kodo dilala ate femfola ni mankoɗo dilal aye kajab wotumo len tolla politique be tiñata wotumo len tolla mol be tiñata ka commencé kakko ɗo ñini government ni masoto ya kajab because mol ya karan ateya he can try to sugarcoat his, his behavior and ka, ka call it i don't take any money there ti jam every day akad speech ke ñamin kala programme ke ñamin ate min ka ke ama kala muta kota ke tol ka min ka jube we see all the game aya mira fana tol nyamata because aya lonen tol lafita seytanu kuola adon tol man lafin iccoda wala yatin nan tol lafita ala radio sifa mi yalon tol kan yon nengje aya lonne wala yatin ayen tol muta komi fool aman tol kanu a jube wo problème min kenon fo aya ke yajame yo kewo fa aya fa minne ko ngalo ne yajame moy moy ataya diyala fo yajeme wo kewo fa ate wat aka mune karan karande ye ka fo gambiyanol ko yajeme ka ataya, kan right now just let me know what is that gonna gambian gonna learn and benefit from what ga ka ataya that moment na manke alafta wo ye fa his hate for Gambia is beyond wala yaati na akalafi Gambian muli mandinkool uh, hate all the time he will try to make any tribe to become enemy with the next tribe in Gambia. I don't care Mandinka, Jola, Sarahule, just any tribe at Not to mention the tribe that is bigger than all the tribes in Gambia. 70%. Hani ntipango mbama kontola chosano is Mandi Muri. Ati fangu maybe because Alabama jump her bring get. Alabama so is get. Alabama so is get. Maybe they related. I don't know. son tol be fan ni ye fan kumandi surwa or whatever ni ye deep deep deep deep deep family long i b'a ko you have something to do with mandinka tol jama ne ya tara his focus on hating mandinka deep hate like a one year old he cannot hide his hate anymore hmm? this is just to tell you he doesn't love gambia if he love gambians he can fix gambia why do you have to make them hate each other it's like ntebe young sign nakorda en gambia nafamili ɓe sabatiti jen ka every time ke call ka, ke jahase ka feet koye ka kaari kaari man lafila kaari fata kaari la kaari kaari man lafila kaari ba pare kana ka fo a lafta atelier ali sabatina kordade a ngal kallule ngal lofle aton mula famillete ni ngal lof muneya tinna make alye live in peace if you love someone something that you can do very simple and is free is to teach them how to love and live in peace and how to love each other. That's how you love two people together. Even if it's one individual you loving, the best way to love them is not money, it's nothing, it's free. Is teach them how to love themselves and to love other people. That's all. Simple. That's more beneficial and more powerful than any money. How the hell you gonna love a group of people and you're dividing them? What kind of love is that? Is that not a narcissistic, hypocrite, lying, idiotic love? He does in Low Gambia. Every day Abala radio station, Aba Fola, what's Gambian soul mu hypocrite leti. Just look at how hypocrite Gambian soul. Kamol Neng hours. ntol be mi video ke nga sol neng warante nga nimmo nimmo yen yo neng nga karang ate yale like i said starting from me because ala wolof is very similar to mine you and just ate ye big platform soto ka diamu 24 hours like this for years mol ka support ka listing so nti nyongol ka bring a video start how am i gonna this is wrong because mol ka fole ate akatonya drone fo i buka fo ko a jawyata a mambeteya don't kafole but hani niya fo fonang they stay listening to him and support him because the more you listen to him the more he will have some money here from it do ba fola yalo ateka toñale fo because he blackmail people he's narcissistic aya lonni how to blackmail people so aka lafile mol ya mira ko aka toñale fo so he have his way of talking and his way of blackmailing ñin toña na keta kilinti wala fula woto sey be wuli ya ning hypocrisy ning jealousy ning hate ning tribalist diamolem So what's the point of the two-tonya? What Who want type of two-tonya? Sa nyinke o meta ka nyinke Gambia. Yes, all these years ntolia allow just because it's Gambia. Nayatra is another country mole nyinke o banne, mole fight ka campaign against nyinke o ka fight for ayala platform sorong. Bari because ntol mbuka fight for what is right. Nings nga sefe njemi yalon ko fight la wala. mbuka fight specially na tara wo fengo aka mol la kandindi warante ka mol toñi mol mi yaran tol man la fi wala mbafala who is gonna condemn it they telling the truth who is gonna condemn it batu fo aye fang toñi but mune yati nante nka pa condemn this whole time is ni pa man ite tofo folo for example alonko imam barke folo wala yati na me tofo number 1 number 2 alon ko hani ni pa fata sainten bi aye min sabatintolla society aye ñin kajabiro nin hate nin tribalist nin lack of respect min sabati jang all these years hmm? mini bo wuli la ke ite la warante ka ke ila diŋol wala ila diŋol la e- e- wala ila baadiŋol la diŋo hamani online radios to come in the future for it's just gonna be Parler online radio and other few on online radio. I don't know how many we have. The thing is not gonna be more online radio in the future. So yamere ite nayatara ite mu ami job ñongolete imam barka folo wala yate napa men ite la dingol wala ila badiŋol wol la diŋol in Gambia Yamira will be halakela, will be tekela mo barkemati from the government or, or even to be a president or vice president. Yamira, it will be halakela, uh, ite barkela. I don't think so. One of them or even couple of them could be in the government or even end up being a president or just a, business person or, just a developed person in general in Gambia or even Tubabudu. Yeah. paaba nen ni pama neng ay dindingol min influwaning ala nendiro ning ala kajarbi jealous kajabiro ka kumandi am tenen da wolbe wolbe wol nen na neng ni ya ate nen for example ni ami job programme there's something about ami job anyanta publish la ami job call la ami kana publish mbe look after you are bullied, you are put down. Ami job ye pa after. Ni kodo nyin jartala. Ayata. Ni kodo nyin aman jari is pound ako ba ba put la down. Who tell you I'm a dogo dogo journalist pound yen look after. Ni ami job ko don't worry I'll give you 500 1000. Ayata ay ate ami job publish I am your publish in a good way. Every journalist, when they're publishing anything, listen, they always have two choices. They can publish it to make it look good, or they can publish it to make it look very bad. Doesn't matter how bad is what you did now. They can still publish it to make it look good. It's all about how you see things. We know this game, pa. Naatara Amie Jobe Kodoo Dilala, I very good. but pare most of the time ate even program kela about amijobla topic warante naɓe program kela about amijobla topic after ya publish I enact a good program. I, for, I want to talk about Ami Jobe. Well done for Ami Jobe for doing this. Ah, this person just don't like Ami Jobe. They shouldn't say this. They're fighting Ami Jobe. Da, da, I don't believe what they said. Nga, I will pro be that are good. Pa, we are watching. We know natara ami jo ko ɗo dilala ay ami jo very bad ɓe pare nak aye na barba sendeng suuke ami job nak aya against ami job he what he really bad da da da this is happen ami job is la de da da mool bee ye kool yena ami job neng ami la enemy yoot ye jomp ye kool aye jele aye ami job aya neng and you know it i don't think at all ma ñin long I think we are Gambian. We're supposed to be clever people. Hello. I don't care neither until I have to this other platform. Ninting a new platform si fasoto. Al nyantante condemn la hon 110 time. Nintene nga pal platform soto like nying pa platform al mante condemn. Ntal bala li hani nim fata. Not just because ntebe molla hakol soto la mimbente sambano la jahanama. No. It's because the young youths that I'm going to be influencing how to be bad and evil, deep evil, and call it telling the truth, like a high drug person on drug. It's because of the damage I'm going to be causing to this tiny little community called the Gambia. Wuliatina nalmante condemn. Ali nying petition kentela. Antal forgive la nintinga nying platform si fasoto. Pa is one of the number one people that empower the Gambian pour que nendiro kabrin jannin paɓe commencé la kala ñin jompo habri radio ke aliya jeli gambe yeno kañin ke over the years pa getting worse you know pa every year he's getting worse it's like he's mad he's chronic with this wickedness now it's like he's going using drugs when he's talking sometime yeah because even at all me you're like because you like that evil thing you know and you don't care about the community or you don't know the damage Couldn't you ban drugs like you use wala wala Why is this person saying this? Ntol nyongol mika birimbe politique. Politique jaw ya sifa ntole minke yalong is nothing compared to ateka ke nyame hani sai. Be nga karang ate yale. Whoever who else is doing that? Let's just be real. It's embarrassing, but let's just be real. This is People don't have time to fake or lie. no one is safe. I could die next this is corona year remember no medicine yet remember paale confident and courage di mool ye kana face kana public ka mool neng ka mool kajabi ka commande am telling the truth the truth is totally different from rudeness idioticness jealousy talking for you can have the money from talking those all of these things is totally different from truth what did they have to do with truth Look, I'm tired talking. I was doing YouTube video about this in English. And I have work to do and I'm not well. I've been exercising these days. My body's painful. That's why look at me. But this is serious. I'm tired of just nipa go to crazy. Sometime nga naa. Nte naanola all the time because number one buka listen to all the time. Nka only listen ni aye fenke. nga try nga wo fengo la moy for example it's not everything o nga nga moyle not long ago ak abenu mama nding xama naka mama sar xawma o mama, linger and just other people aka minun mune yatin na foko ali wo fanan put nalbe nalbe petition sign na wo hate speech ko udp la mask e ka min di molie e, e have poison udp wanta kala fi mol poison all this pour molia mira mandinkor wala UDP poison what is this even someone high on drug te nyin dia mo like one year old that doesn't know know how to hate and doing it wrongly Allah hate is too much that he doesn't even know how to sugarcoat it anymore it's you know whatever he was using to, to sugarcoat it has faded away now he's just left with his hate alone plain blank like this look I'm tired talking. Alita and after Facebook, after, you know, after this video, tired na Facebook ye wo petition ye lo, ya click ye sign, ya share, ya for mood ye click ye sign. Na ye nyinin ka mune ya tina you want this person condemn. Ya explain why you want this person condemn. Take your time to type. Tell them hate speech, tribalist speech, destroying our Gambian community. he destroy lot of people lives he even kill some people that's the reality yaha jami mo jama fa atele ya tinna mol fata nayatan adama baro government right now is not dictatorship mo jama be fala hani adama baro government right now mo jama adama baro ya ya, ya baydo atele ya tinna ayam so government no government min nata be wala kala aba fola ñin party don't like you ñin person don't like you they from another party or oh, da da da adu ibe du kola iteya they don't like you i have confidence de i have information they don't like you de so iteye wo bay ñin tiny two million gambia alka neglect ka ñin damaging people jube aka neglect alka jele what is funny listen i have time to jele and joke but not always the when come to reality I don't have time for jelly and joke. You know why? Because this thing will affect you, you know, the jelly and joke. They will destroy the jelly and joke. They will destroy our community that the jelly and joke will be gone, will be disappeared. So to protect the jelly and joke, you have to protect this harmful thing that is coming to destroy the jelly and joke. Who is going to joke with who? When all the Mandinkan are the world and the wall of are hitting each other. Pa make the, the, the, the group of Wolof that hate Mandinka now because of Pa. Every day he will go to his platform, insult Mandinkas for them, and they're laughing and joking. What is laughing and jealousy? Nayatara Mandinka passing ye ye radio station sort of mimbe wulila every day ka jump her bridge, you know, uh, surwal wala manjako. All day, wol ka call ka jele. You will like it? That's what you are gonna do. You're gonna tell other Mandinkas to also neng surwal ye jele nyola. Surwal fana ye neng Mandinka ye jele nyola. Na meta fulal fana ye na jolal fana ye na. Anyway, we'll, uh, thank God they're not even involving. Look, we're not any younger. Na ya tsaran tol kana Facebook nyamin kanyo neng alman la fala. Woto pan diri mi yalon ko he's the number one champion of Nendiro. Allah condemn. Atelen tol be dalen di nyina. Kajabiro on air, going personal on air, calling it telling the truth. When he's lying, he published so many lies before and will to publish. He talked about so many things that there's no evidence. Moliente email letende, uh, I'm going to publish the email. He's lying. He can even email himself and publish Everybody can do that. You just create another email address and email yourself and publish Most of the thing he's saying, he's lying. If it's true, it's the truth. The whole eight is lying. So now that you know he's destroying Gambia, you don't just know it and you do nothing. Go and sign the petition. I'm going to share it again. It's there. already on my Facebook and I share it on some of the Gambia platform. I'll share it on all of the Gambia platform. Go and sign it and share it to everybody. Within two days, we will reach even over 1,000 and we will just. I have to go because I, have work to do soon. I don't know what time it is. This woman coming. Ooh, it's coming to 12. Someone want to join the topic, but I have to go. It's coming to 12 and I got customer. We do this next time. So just keep signing the petition. I'm going to share it again. Hello. Yeah, hello. Um, uh, this is Bob Ture calling Hi. Hi. Um, this is the first time Purka participate in a private video of any individual within the diaspora. Mm -hmm. Um, my disappointment is not only to Panderimbai. The disappointment by Chandari Jamal Lamini, they are living in America, in the same country with mm-hmm. Panderimbai, and the same state with Panderimbai. Me along this man is finding only bigotry in our society, hate speech. They couldn't under, uh, organize themselves to fight Nim Bigot. Purkajeko, ya stop, ya put into his place. Now, the hypocrisy is too much, especially coming from America. You know, shame on you, Gambians in America. Shame on you guys in America. You know, I remember situation. I remember situation do happen before Mushol within EFA organized per Kamodol Tamil and they have some fracas with certain women in the struggle. Ilota will call her women's, you know, one touch one, touch all. Now, where's the touch one, touch all here? Is it for a selective few? you know, let's stop exactly. Let's stop the hypocrisy, my friend. Panderimbai is a non-bigot. They are scared of him. You know, those in America, they are scared of Panderimbai. Probably they have some hidden uh, skeleton in their cupboards. Me along maybe I, I, I mean, I'm uniform. You know? Why scared of the man? Me along only tribal bigotry akawale akawale instigate Gambia kon. The man is full of shit. He's a scumbag. So, I mean, thank you very much. I'll sign your petition, and I'm encourage everyone to sign this petition. Because this man Thank you, so much. Really appreciate it. Thank you. Thank you. I'm going to do another live video next time that is going to be longer. Today I'm working, that's why. Maybe tomorrow also I'll come back live again for us to tell people to sign it. Thank you so much. Yeah, I'm going to go soon, but yeah. Like I said, it's beyond even, you know, nying nying you attack I Ayeminke Rohilo. I met a Rohilo Nenna, worse than this, for years. And no one even signed Jump Harbour, nothing. But like you are saying, it's true. People in America, for example, Nintenga petition finish, I had to submit it. People in America knows where Pandiri living, knows the government of America who to contact about Pandiri and, and, whatever. But I think this petition, if I get a lot of followers, is more powerful than individual person writing. But still, ni ni you do this petition. It's even for a long time because he told them no even the damage of what is doing more than me. They listen to him all the time. Some of them been to school, understand how to read and write properly. So if they had to leave it for village woman like me to go online to do research on how to do this, to try to set up this, it's shameful. atul fango mi yalon ko pandiri yal neng ay wala ay alla badi neng yalonte amonten follow maybe amonten nen nasanya i don't know he ako abuka bojo bojo danko i hope ate bojo bojo danko la who cares but atul mi yalonko ayalte nenne wara aya ala wala friends mune atina alman sign petition ke alman fenke you just cry or you just get angry and leave it no until the community is time for when we don't like something, we do something. Mm. Nying insulting and calling, I'm telling the truth. Nying uh, American woman minnata in Gambia. I can find at Kati. I will ke. I don't tell man la fala kawuli kanyi jump her petition sign for atay deported. I tell them to stop listening to it. A lot of them will not stop. simply because they know that you know he insult for example he will insult mandikas for them and they're laughing or he will just insult Barrow for them or insult Dabo for them. He insult Barrow if Barrow don't give him money, and then he insult Dabo if Dabo don't give him money. So he's swinging between them. He's insane, but for him, his insaneness is beyond. So I'm not bothered about him, to be honest. It's the community, you know, the community he's is why I'm talking. Akan tu min kalindi dalindi nying jau ya top kakumandi telling the truth. Telling the truth is nothing to do with rude, arrogant, wicked, insulting. If I'm telling you the truth now, if you a president or you are opposition person, I can just say, I don't want your government because you're not doing this, you're not doing that. That's me telling you the truth. But if I tell you your mother was this, your father was this, you are like this 10 years ago. Even te, nin laftan si pandering sa fire ila mother is like this, ila father is like this, is like this. Because nin nin laftan mo investigate la, ika investigate la, we all Gambian. Yena fen ya la faje fana. Ya dada fire nyinya, ya, ya America. But do see me doing that? Or I'm just talking about the damage that he's causing to the society. I'm just talking about that alone right now, isn't it? That's telling the truth, I think. I read books even though I can't read properly. Barry, it's not I'm better than him, no. Because alanyamatia ayakarandin telanka kelanung over the years aliajele. Kana kafukari mune ati nenyinke sakantuma kabirimbe num politic. Because yalo ati akakele like the worst politician in the world. And then the same time, I'm I'm not in nobody, I'm I'm not citing nobody, I'm telling the truth. of course ate side la nobody because he take money from everybody so naye one party choose ate kodosotonola from the other party because party o party mol min ya ki kodola minu ya sponsor minu ya pay kodola abe wo party tentula abe jaila party do ay wol neng wo party the same party ay min neng fanak ni wol ya ki kodola ay na ay wol jay fanak ay wol tentu you know ay na ñu neng fanak wol ya job So he's going like this between all the parties, especially these two two big parties. But it's not about the Kodo. I don't care about the Kodo. Kodo is Kodo. It doesn't do you anything. But nyin damage ala nyin Kodo collector and ala nyin narcissistic hate, lack of love for Gambia behavior. Aka damage min kento la youth soul. hani nin tenga la moy for example na na diningol ba moy la because they know sura abe dame kela wola wol ba mi la is okay pour ye mon nenten ye kajabi ya kole telling the truth ninte min kete wolla ba mati ninte nga wok tapa ateya funte nga na facebook kake woto there is a chance wol ba kela gambian o oh, gambian mi yalon kon tolla facebook be nyamin kanyo kanyo nen 24 hours aman die ntol ka hate nyola nyaming amandie ntol biko nyo support noo nyaming and just going crazy amandie woto nying partisan sign ye pandari condemn can I listen to Pandari also anymore because Pandari Day, he's the number one champion that teach us all of this. He's the one that teaching us how to hate each other. He, he's the one that teaching us how to put each other down to the maximum, to the lowest, and call it, telling from nowhere just telling the truth and the truth is to insult you woto ni moye mo bannen mune yatinne mol ɓe fala are not telling the truth a fo a bamaye e bamalan fo a wosoto bari ni moya fo e ɓe lafila kefan fa are not telling the truth woto mune yatine alka kam fa if you just want the truth That's telling the truth, but it's not good truth, is it? Because it's unnecessary truth and insulting truth. That's what he's doing. He's all he buka abuka na ayafu moye ibama ten, but akata deep me yalonko is beyond whatever it is. nothing to do with whatever the f he's talking about. And he will just randomly bring these things, you know, and fake them and just exaggerate things and bring them piling different things up and call it I'm telling the what that turut got to do with what you're talking about? That's what I don't understand. What Unayatra, I told you so honest. I told that supporting him and saying that people like me should find a break. What Onimoye Banen, Kana But it's, it's, it's, but it's mad, insane, rude, arrogant, idiotic, peg kind of a truth. So, Pandarian told Bedal in the bully, ning insulting, ning idioticness, that, starting from me. And as much as it's embarrassing, Alien told Lonely, I, me, seen life. I don't care, it's embarrassing. I will tell you guys the truth. Nte, ani mo jamal Pandarian told Dalindi, kana mol neng, ka koli, I'm telling the truth. And that's the reality. But, Alia Lonely, nte, I'm in a new journey. I read mindfulness now. I learned the power of communication. I learned fana mo ni lafta community makoyla. Inyante fanne makoyla force ye fan change. Ni ye fan change ye na ye to for community ya foko. Nyin ku on ka ke nyaminu it's not good. So please kanante noma atol be minu yente noma ali change. Now this is the good way. Let's choose this. That's how you can influence community. That's how you can change the community. It's not money. It's a Par no. is to tell the truth and to not be narcissistic and cannot have ego cannot wara kafuko i'm not going to change i'm right everyone is wrong because part think that he's right everyone is wrong he's his own enemy no one is right in this world i'm not right too don't think i'm right i'm just living life i'm trying to better myself every day no one is right the moment you think you right everyone is your enemy you your own enemy you can never you every day have to learn to get better. You can never be right on everything, you know, like, no. Especially when you're talking to the public, you every day have to improve the way you talk to them. Every day you have to read mindful books, the power of communication, the power of words, the damage of words. Every day you have to learn that and speak like that. The moment you refuse to learn that, or you learn it and don't use it, you are the worst speaker I don't care if one person is listening in a million. Doesn't matter. You're damaging their brain. Teaching them how to talk to their husband like that, talk to their mom like that, talk to their boss at work like that, talk to their friend like that. I'm telling the truth, find the brain. Ah. Who does that? What type of true and influencer is that? What type of love is that? If you cannot teach people how to have respect, what can you teach them? The whole world Everyone knows Chinese, Indian, even the monkeys in the jungle knows that. Until Jamaah have respect for each other. One minute until we are Salaam alaikum, eh, nice and kind. The next minute we go insane. So Niang told Kanu, Adun, you don't know how to Kanu us. Close your radio. How to Kanu us is to teach us how to love and learn how to respect each other. Because in Tola community, as much as we don't respect each other, we don't know how to respect each other because of people like you teaching us not to. Told man laughing, told a told disrespect. Man laughing at Dokomarian told disrespect. Man laughing at Kemarian told disrespect. Man laughing at Musorian told disrespect. Man laughing at Friends Orient told disrespect. Honey at work, me more disrespect, we get angry. Then, how are you teaching us how to disrespect us? You're confusing us. You're killing us. You're depressing And you know we don't like that. We don't like it when we disrespect each other. What we will never have peace. Then learn how to respect us by curing yourself, teaching yourself. All these things you're teaching us, teach yourself it first. If you love us as you claim. And then teach us it, which is we learn how to respect each other. Ntol mo fingo ni mo respect. Ika happily more than I will killing dealer for one time. woto ni kan tol ka karandin tol ye ñoo neng ye ñoo kajabi ye ñoo hate ye ñoo disrespect ka talk to us like we are dogs you hate us you enemy now find a break i have work to do ali signed the thing